الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان فإن المجتمع الإسلامي يواجه مشكلات عظيمه في هذا العصر ومنها التقصير والتفريط والإهمال في تربية الأولاد
فقد نتج عن ذلك الانحراف الشديد في الشباب والفتيات وحقوق الوالدين وقطع الرحم وغيرها من المفاسد فلا بد من حل هذه المشكلة ولكن السؤال كيف نحلها mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu tey sunu xutba mooy tarbiyatul awlaad kama yaraahu alquraanul karim yar xale yi yar sunu doom yi naka la ko alquran gisee xam ngeen ne société islam bi tey mu ngi jànkonte ak ay problème yu rëy rëy rëy ci jamono ji ñu nekk loolu nag bokk na ci li ko waral mooy gàttañlu bi nit ñi gàttañlu ci yar seeni doom ak càggane gu rëy a rëy rëy ci yar xale yi càggante googu ak ñàkk a yittewoo ñàkk a toppatoo yar gone yooyu mbokk yi def na résultat yu doy waar ci yàqute bi dëkk bi yàqu soo xoolee ndaw yi góor yi ak ndaw yu jigéen yi xool xale yu ndaw yi ci réew mi nga xam ne dañuy woote woo lislaam di ko tuddoo di ko mbubboo sa yaram day daw ci yàqute gi nga xam ne ëpp na ñenn ñi dem nañ sax ba yàqute gi ñu yeggale ko seeni ndey ak seeni baay ci duma seeni ndey ak seeni baay walla sax jël ngànnaay jëme ci ñoom ñenn ñi dañuy taxaw face à face ak seeni waajur ñenn ñi ay dokkati mbokk lañ wa gayriha min al mafasid ak yeneen yàqute yoo xam ne ku nekk fi nga toog soo waxalee yàlla teg nga ci sa bët ci yàqu bi nga xam ne ndaw yu góor yu jigéen yàq nañ ko léegi nag mbokk jullit yi yàqute googu en tant que ay jullit en tant que ñu wax ne ñun ay jullit lañ yàllaay sunu boroom islam mooy sunu diine ndax dañuy yàccaaral rek continuer ci bañ a utal yàqute yooyu solution wala dañuy yàccaaral rek ku nekk ne mënuma ci dara jamono ji dafa yàqu tey xale yi kenn mënalu leen dara comme ni mu amee ci jamono ndax loolu lañ bëgg a def ixwatal iman laaj bi mooy problème yii ñu nekkee ci yar njaboot gi toppatoo leen kenn ku nekk war nga laaj sa bopp naka la ñuy trouver solution pour delloo jaami yàlla yi ca seen boroom alaysa hunaka ulama yahtamuna bi tarbiya suñuy laaj dañuy laaj ne ndax dëkk bi tey amul ay boroom xam-xam yoo xam ne dañoo yitte woo yar yar moo war a nekk seen yitte ndax amu fi ndax Sénégal tey fii nu toll dañoo dem ba xeet wi ndaw yu góor yi ak yu jigéen yi amatuñu ku leen yar ndax foofu lañ toll walla ñu ne ndax dañoo dem ba amatuñu ay école yu sunu doom yi jàngee ay boroom xam-xam nekk fa pour yar leen ndax dañoo amatul ay université yoo xam ne dafay delloo jaami yàlla yi ci seen borom yar leen jàngal leen ñu jàng fa yaru islaam wala ay téere yuy jàngale diine islaam di jàngale yar moo fi amul wala jumtukaay bu ñu war a yare xale yi moo fi amut ay laaj la yoo xam ne ku nekk ci ñun war na ko laaj boppam ndax dañoo dem ba mënatuñu sax liir benn téere boo xam ne dañ koo bind ka ko bind di jàngale nu ñuy yare njaboot balaa aha kay tontu bi buñ koy tontu nañ naan dëgg la kay lii yëpp am na ay borom xam-xam a ngi fi ay école a ngi fi am nañ université ay université sax la ñuy wax am nañu ay méthode am nañu ay jumtukaay am nañu ay téere yu jàngale yar lii lépp a ngi fi walakin laysa laha asr illa al yasir loolu amul jeexital lu dul lu néew amul jeexital borom xam-xam yi ibrahim bun adham rahimahullah borom xam-xam yi dañ ko ne bu njëkk ba su borom xam-xam yi waxee rek nit ñi yeewu daal di de daal di jëfe jaamu yàlla ñu ne ko seex tey dañoo seetlu borom xam-xam yi dañuy wax ba sonn kenn du jëfe mu ne waaw loolu de am naa ci tontu ñu ne ko luy tontu bi mu ne démb borom xam-xam yi dañ doon nit ñi dañ doon nelaw borom xam-xam yi di leen yee mu ne xam nga ku yeewu moom moo mën a yee kuy nelaw ñu ne waaw démb nit ñi dañ doon nelaw borom xam-xam yi di leen yee ñu ne ko tey nag mu ne borom xam-xam yeey nelaw nit ñi dee xam nga ku nelaw mënul yee ku dee ku nelaw ndax mën naa yee ku dee mbokk yi tontu bi mooy déedéet tey fii nu toll mooy borom xam-xam yi ñooy nelaw nit ñi dee ixwatal iman li ñu wax lépp am na mais kenn gisul résultat bi ci mbedd mi lakin walaw tadabbarna alquran alkarim haqa tadabburi لوجدنا فيه حل هذه المشكلة لأن القرآن كلام رب العالمين فوف يب داو نان دم فا لوتاخ امونو سوليسيون لوتاخ امونو ريزultat موي تيرé يالا بي lañu bayyi القرآن lañu mujjé ginaaw loolu ñu am problème yépp suñu dawoon tey jublu ci alquran mu réglé ko ci 24 heures ci 24 heures la ko alquran di réglé xool leen sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam bi muy ñëw makka yàlla di ko yónni nan la fekkoon waa makka nu ñu mel nan lii ngeen gis alquran di tere njaaloo nan sàngara am doom bu jigéen suul ko am re agressé rey yu ñaaw yi ngeen di gis ni la makka meloon waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu leen indilee alquran ñu gëm ne téere bi mooy téere boo xam ne day régler problème ni ko yahud bi tuddee woon yahud bi tuub yahud bi tuub mooy Jacques al yahudi Jacques benn xale la boo xam ne mu ngi woon France nekk yahud yàlla def mu dëkk ci benn immeuble boo xam ne magasin bi ki fiy jaay benn cheikh la bu tudd cheikh Ibrahim moom mu ngi bàyyeekoo Turquie mu ñëw luwe ci suufu immeuble bi yor bitigam di jaay xale bi saa yu xëyee danañ ko yónni dama nga jëndi ndékki su ñëwee ci Cheikh Ibrahim su jëndee ba pare day sàcc benn chocolat dugal ci poosam dafa ne cheikh bi yëgu ko fekk cheikh bi yëg na ko bu yàgg da ko bàyyi ci biir ba mu am ay weer mu am ay at xale bi ñëw jël ba pare daa di fàtte cheikh bi ne ko Jacques mu ne ko ah mu ne ko nasiita xit atta sokolatik fàtte nga sa sokola yi nga daan jël rek xale bi tiit di lox ne ko kon yow xam nga ne chaque jour su ma fi jëlee dinaa jël sokola mu ne waaw xam naa ko kay mu ne lu tax waxoo ma woon dara mu ne moom la bàyyi woon ci biir rek mu ne léegi nag danga ma yóbbu police wala da nga may booleeg sama famille cheikh bi na ko ñaar yooyu yëpp duma ci def benn waaye balaa may wax loolu dama lay wax dara soo ko nangoo duma la yóbbu police duma la booleeg sa waa kër mu ne ko lan mu ne ko da nga may waatal ne yow dootoo sàccati bàyyi nga sàcc dootoo jëlati loo moomul mu ne ko dootuma ko defati ko ah bon wóor na mu ne waaw mu ne d'accord mu ne man tamit assuréel naa la saa yooyu ñëwee suba gi dinaa la may sokolaa léegi kon xale bi dootul sàccati waaye saa yu xëyee bu ñëwee bu jëndee ba pare góor gi dina ko may sokola xale bi màgg xam ngeen société française nu mel ci problème bu fekkee ñun ñoo nekk ay julit sunu ndaw yi am problème waxuma la ak dëkk yoo xam ne sa waay diine amu fa ndaw lu màgg France juddoo fa yaroo fa nekkoob jullit saa yoo demee ci islaam yàlla la bëgg indi aljanna dong waaye gis ngeen xale boobu màgg nekk waxambaane nekk jeune toll ci vingt ans vingt cinq ans problème kese chaque jour mu ñëw ci góor gi ne ko dama am problème luy sa problème mu wax ko xal góor gi ne ko xaaral toogal mu toog góor gi ñëw ubbi benn waxande génn fa benn téere ñoo ne ko waxalu sa problème su waxee ba pare rek góor gi daal di ci téere boobu góor gi xool ne ko sa problème day lii la nangam ak nangam daal di liir demal soo ko defee rek solution am xale bi day dem régler loolu ñëw ne ko non góor gi yow doo nit non yow sa téere bi téere mas yi la téere boo xam ne saa yu ma amee problème su ma ñëwee su ma la waxee rek loo ma liira rek su ma demee su ma ko defee problème bi réglé góor gi noonu la mel ak xale bi xale bi def ko xarit du xëy te gisul góor gi du tëdd te gisu ko ba benn jamono góor gi feebar ñu hôpitalisé ko góor gi daal di génn àdduna ay doomam di laajte xale boobu fu mu nekk ba mu ko yëgee mu daw ñëw ñu ne ko sunu papa génn na àdduna xale bi triste daan ne man moom sama àdduna yàqu na parce que góor gi moo ma doon régler samay problème ñu ne ko waaye góor gi balaa muy faatu am na lu mu dénkaane ci yow am na benn cadeau bu mu la may ñu jël benn mbuus jox ko bu ñu paqueté xale bi daal di dajji mu gis benn livre lañ ko jox mu ne ah kon livre solution bi la ma paa bi jox livre solution la ma paa bi jox léegi nag luy sama problème man man kat dama daan ñëw su ma amee problème paa bi liiral ma tey lii du français du anglais mais lan laa koy liiree mu daal di koy denc mu am problème mu gàddu téere bi di dox ci biir France bokk téere bi ba mu dajeeg benn waay mu ne ko yow jàng nga arab mu ne waaw waaw ba lan mooy sa nationalité mu ne ko Tunis laa dëkk mu ne ko man dama am problème mais chaque jour su ma amoon problème livre bi moom lañ may lire rek problème bi dañ waa ji ne ko indi téere bi mu daal di koy jox waa ji ne ko waxal luy sa problème mu wax waa ji daal di koy liiral mu dem def ko problème bi réglé wu mu ñëw mu mu wër waajooju gis ko ni ko waaw man damaa jox damaa jaaxle téere bi moom fan la jóge kan moo ko defar mu ne ko kon yow xamoo téere bi mooy lan mu ne mu ne téere bi mooy alquran alquran la yàlla wàcce pour problème mu adduna bi réglé léegi nag mbokk yi laaj bi mooy xoolal kooku chaque jour problème am alxuraan réglé ko ñun ñu nekk ay julit suñu problème mënu réglé wu te kooku ab yahud la déggul arab mais dañ koy liiral problème yi mu am su ñëwee alxuraan réglé ko xale boobu daan ne ko waaw diina ji nga xam ne moo wàcce téere bi ku ci bëgg dugg looy joxe lan ngay fay pour nga nekk jullit kooku ne ko dara da ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga nekk jullit xale bi daal di yëkkati ay loxoom nekk jullit xam ngeen xale boobu bi mu nekkee jullit mbokk yi après lu mu def ay 500 millions personnes la tuubloo ci ay nit dafa tuubloo ba tuubloo yaayam ñun ñu nekk ay jullit mënuñu am ñun mënuñu trouver solution te téere baa ngi nii kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumat ila nuur ñun ñu yor ko guddeeg bëccëg ñoo ngi jàng ñoo ngi jooy ñoo ngi yuux mu ngi sunu bibliothèque yi koo gis mu ngi tegale ay kaamil këram te benn problème rek lawul kon nañ xoolaat sunu bopp ma ne sànq laaj yiñ doon laaj lépp a ngi fi bu ñu settantaloon alquran dëgg-dëgg gëm ko ndax waxu yàlla la yàlla moo nu bind alquran waxam la alaa yaalamu man xalaq wa huwa allatifu alxabir yàlla nee na maa leen bind maa leen xam tubaab bi bi mu defaree machine bi ba pare même bu fekkee portable la tubaab bi bi mu ko defaree ba pare ba defal ko ci kees gi def ci chargeur def ci écouteur def ci def ci def ci def benn notice yow pour nga jëfandikoo portable bi rek da ngay ubbi notice bi commencé ñu wax la portable bi li ci nekk lépp doomu aadama bi ko yàlla sàkkee ba pare notice am mooy alquran moo tax ku bëgg a dund sans alquran du dem inna safinata la tajri alal yabas gaal du daw ci suuf mukk gaal gaal nañ ko defar ba mu rafet buñ ko tegee ci suuf si buñ ko puusee tamit dañuy puus ba pare mu taxaw ñi ko puusoon di xaaraat ndax gaal sunna bi ko yàlla bindee mooy du daw ci suuf gaal fu muy daw ci ndox doomu aadama mënta dund sans alquranul karim rawatina ab jullit sunu borom wallahu yaalam kayfa yurabbi maxluqahu yàlla moo xam jaam yi naka la leen di yaree fan la leen di jaarale pour ñu baax yàlla moo xam al asalib wa turuq al munasaba li tarbiyati al insan min tufulatihi hatta al bulugh yàlla moo xam yan méthode yan yoon yan mbir la ñuy jëfandikoo pour ñu yar xale bi ba ba muy màgg xoola sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax rafiq tiflaka saban wa allimhu saban wa laibhu saban jàngalal sa doom bu mu amee sept ans yar ko bu mu amee sept ans formé ko bu mu amee sept ans sept fois trois vingt et un ans yow ma tax yonent bi jël Usaama ibnu Zeyd mu am quinze ans mu jiite guerre Usaama ba muy jiite xare mu nekk ci kaw fas bi Aboubacar di dox ci kaw suuf di ko dénk def ay tànku neen solul dal jël loxoom teg ci kaw fas bi Usaama jàpp ngalaab bi fas bi dox Aboubacar dox di ko topp di ko dénk keroog usaama mbokk yi fukki at ak juróom la am kon yonent bi lu mel noonu la fi bàyyi ay nit yoo xam ne fukki at ak juróom lañu am su iliman tardé ñu remplacé ko suñu tegee néew bi ñu mun koo jiite su iliman amul kuñ tudd ngénte kooku tudd lépp lu société bi ñuy jariñoo doomu aadama yonent bi bàyyi na ay xale yoo xam ne buñ ñëwee def ko waxuma la ak ay mag nag fàttali ki ngoon Abdallah ibn Abbas hibrul umma wa tarjamaanul quran omar ibnul xataab da daan def ci jamonoom su toogee rek mu ne ana abdullah ibnu abbas mag ñi daal di mer waaw lu tax xale bu ndaw bi omar su toogee rek di ko woo kii mooy kan dafa mënta dem ca moroomam yi fawi mag ñi toog fii xale bi ci seen biir omar coow li bari coow li bari ba omar déggal ko boppam benn bis ñépp toog omar ne dama bëgg ngeen firil ma suratu nasr iza jaa nasrullahi wal fathu ngeen firil ma ko kibaaru sahaaba ñenn ñi ne ah iza su fekkee jaa ñëw na nasrullahi ndimbalal yàlla wal fathu ba nga ubbi màkk firi ko comme aaya yi ni mu tëddee ba ñëpp jeex mu ne lii ngeen ci xam ñu ne waaw mu ne abdullah ibnu abbas suratu nasr laa bëgg nga leeralal ma ko mu ne ko awalan balaa ñuy dugg ci maanaa kalimaa di saar bi daa ñëw pour tàgg sayduna muhammad allahu akbar lu njëkk mooy saar bi daa ñëw pour tàgg Seydina Muhammad mu ne ko ñaareel bi mu ne saar bi daa ñëw di delloo yonent bi pour mu toroxlu ci kanamu yàlla gis boo demee ba am ndam ba yàlla may la doole nga ubbi màkka fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiruhu bul organiser ay ay xumbal bul organiser ay soirée ngandal sa bopp dafa ne yow yaa am doole pour ubbi màkka waaye dellool yàlla mbir mi mu ne gars yi yéen xamoon ngeen lii gars yi ne ah ñun du kay doy na waar mu ne looloo tax xale bi saa yu ma toogee ma teg ko sama wet kon xale yooyu dañ leen a préparé xale yooyu dañ leen a yar xale yooyu dañ leen a jàngal fan lañ leen jàngale ci alquranul karim man ba mu ngi nii balluwaay baa ngi nii ba tey source bi lu tax tey mënuñu am loolu ñun ixwatal iman kon yàlla moo xam yoon yooyu méthode yooyu ñu war a jaar nit ñu defar ko ba muy nekk xale ba ba muy mag ixwaani su fekkee dañoo bëgg yar sunuy doom def leen ay jullit foog ñu yittewoo bu baax a baax a baax a baax a baax al téere bii di alquranul karim il faut ñu xam importance su yar umuman inna tarbiya min afdalil amal wa aqrabul qurbat fa hiya daawatun wa taalim wa nus wa irshad wa amal wa qudwa ki bëgg a yar njabootam awalan foog mu xam ne liggéey bii may bëgg a def moo gën ci liggéey yi liggéey bii may def te mooy yar moo gën ci liggéey bu doomu aadama di liggéey lu tax ndax mooy defar doomu aadama defar nit fexe ba nit nite da ngay romb benn tabax benn immeuble ngay xool immeuble bi nga jommi nga ne wuu tot tot tot ingénieur bi moo doy waar ingénieur boobu ku ko defar ki defar ingénieur bi kay moo gën a doy waar immeuble bi waa ji moom dafa defar la mu defar jaaxal nit ñi te moom mi defar jaaxalul nit ñi kon kay ñun amuñu xel duñu xool duñu xelu moo tax sunu borom lu doomu aadama jommi yenn saa da koy xoo fi anfusikum afala tubsirun xanaa yéen rek xoolu leen seen bopp kon wa aqrabul qurbaat nit bu fekkee dafa bëgg a jege yàlla li gën a gaaw ci yow nga jege yàlla mooy nga yar sa doom yar lu njëkk doomu aadama war a xam ne daawa woote la kii yar mu ngi woote mu ngi woo nit ñi di leen yóbbu ci yàlla daawa waaye wa taalim yar jàngale la xoola yonent bi ba muy lekk xale bi xale bi ñëw rek dugal loxo gauche commencé dem ci diggu bool bi raxasul loxo bi tuddul yàlla yonent bi dafa ne teeb ci loxo gauche bi ne ko yaa xulaam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik sallallahu alayhi wa sallam yow xale bi xanaa xamoo ne balaa ngay lekk da ngaa war a tudd yàlla sammillah xoolal baat boobu déjà commencement bi rek yonent bi mu ngi ràbb xale bi digganteem ak boroomam tuddal yàlla xale baa ngi dégg yàlla yàlla sammillah ñun bu ñu amee ay doom lu ñu leen di jëkk a defal mooy takk ay téere gàllaaj béjjén ñetti béjjén ci baat bi ñetti béjjén ci tànk yi ñeenti kànnaar ci tànk ndeyjoor bi juróomi kànnaar ci nopp subhanallah xool leen fii liir yi balaa ñu leen di tudd gars yi ay dañ leen di séentire ay ndomb bu mun a këj xale boobu dafay yaakaar ne ndombo yi ñoo koy jëriñ moo tax xale boo fi laal mu ne xaaral ma dem takki sama ndombo yi ndeysaan benn waaye dafa xuloo ci benn jàkk gars yi kereel ko ay problème yu garaaw bi ñu réglé mbir mi ba ñibbi doom yi toog di waxtaan daan ne hey billahi wallahi wa taalahi paa diw tey bu laaloon sama papa malaaka yi ñooy wàcc kaw asamaan dóor ko parce que sama papa tey bi mu yeewoo def na azkaaram te ku def sa azkaar yàlla moo lay aar ay xale billahi paa bi bu ko laaloon malaaka yi ñooy wàcc duma ko pourquoi parce que sama papa bi mu yeewoo def na azkaaram tey wala xale yi ni ñuy xool di jàng moo tax yonent bi ne xale bi sammillah tey loxo bi ne ko waxal yàlla tuddal yàlla xoolal yonent bi mu ngi rabt mi ngi yeew xale bi digganteem ak boroomam ba xale bi du gëm kenn ku dul yàlla xam ne yàlla moo fi nekk yàlla moom balaa ngay def dara da nga ko war a tudd sammillah benn mbokk xam ngeen ko bu baax ci ci kibaaru ahlu sunna yi la bokk doom ji dafa feebar ñëbbu ko principal ñuy ñuy ñuy ñuy jël deret ji waa ji mënta fexe ba gis veine yi fu ñu nekk bu takkee bés dóor jël pikiir bi dugal du xam siddit bi fu mu nekk mu def loxo ndeyjoor def loxo càmmoñ ñu xool bopp bi wat tuuti mënuñu am ñu woo papaay xale bi ñu ne ko waaw gars yi kii de vraiment seet nañ ba sonn mënuñu xam daal siddit bi ban côté la nekk papa ji ñëw téye loxo bi daal di xool xale bi xale bi ne papa ji docteur bi waxul bismillah moo tax docteur bi waxul bismillah docteur bi jommi ah pourtant booy wax naa bismillah de c'est que ndànk laa ko wax rek day góor xale bi ne ko waxoo bismillah moo tax allahu akbar xale yooyu mbokk yi dañ leen a yeew ak seen boroom innahu daawa wa taalim jàngale waaye wa nus yar laa ya biir la xoola ñun jàpp nañ ne yar ngandum bol da nga war a yor yar bu ngand nga war a yor da nga war di duuri di mbëkki fekk yar bi mu nekkee daawa woote ki nga yar da nga koy woo ba mu wuyu si la ñaareel bi nekk taalim nga jàngal ko ñetteel bi nekk nus nga koy laayo biir xoola yonente bi ni muy laayo biir xale bi munoon na ko pes benn pes rek tër ngay lekk di dugal sa loxo càmmoñ waxuma la dara ngay dem ci digg bool bi di cop yone yaa xulaam sammillah wa kul bi yaminik sooy lekk da ngay lekk ci sa kanam wa kul bi lekkeel sa loxo ndeyjoor wa kul bi yaminik lekkeel sa loxo ndeyjoor xanaa xamoo kenn du lekke càmmoñ xanaa xamoo ne seytaane mooy lekke càmmoñ waaye wa kul mimma yaliik sooy lekk da ngay nekk sa kanam ixwatal iman aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله mbokk yi yar laaya biir la da ngay yaa laaya biir da ngay waxtaan da ngay yedd waaye waa irshaad da ngay jubanti wala ba léegi waxaguñu dóor de innahu daawa innaha daawa daawa wa taalim wa nus wa irsaad da ngay laaya biir di jubanti di wax di jubanti nii la ñuy waxee nii la ñuy doxee nii la ñuy defee nii la ñuy toogee nii la ñuy lekkee nii la ñuy nii la ñuy irsaad waaye wa amal waaye jëf la da ngay jëf yow mi yar da ngay jëf ci kanamu xale bi mu xam ne lii la noonu la ñuy def mu daal di koy def waaye wa qudwa yarkat bi royukaay la day roy xale yi dañ koy toppandoo yarkat bi na bàyyi xel ne doomam moom lay toppandoo moo tax arab yi ne isa kaana rabbul bayti bi duf fi daarib su dee bàyyi day tëgg sabar yaay di tàccu kon doom boobu nu muy def su fekkee papa ji tëggkatu sabar la yaay ji mooy tàccukat bi kon doom jooju ñu jur nu muy def laa budda mu fecc mbokk yi ndeke qudwa kii yar royukaay la gis nga yonent bi yàlla ko yónni mu nekk royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa naf'un lil fardi wal mujtama kii yar dafa war a jëriñ société bi individu yi waaye dafa war a jëriñ mbooloo mi ixwat al iman wa kayfa la takunu min a'zami al a'mal wa ajalliha wa hiya muhimmatu al anbiya'i wa rusul wa qala ta'ala fi muhkami tanzil هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سورة الجمعة sunu borom jalla jalaaluhu mu ne yar dafa bokk ci liggéey yi gën a màgg yi gën a rëy ndax moom mooy liggéeyu yonent yi yonent yi bi leen yàlla yónnee dajale alal pour ñu leen di ziyaara pour ñu leen di nangam taxul woon yonent yi ñëw yonent yi lan moo taxoon ñu ñëw mooy defar adduna bi yar nit ñi sunu borom moo ñu nettali loolu ci alquran mu ne yàlla yónni yonent bi koo xam ne jàngul te moo fi raw jox ko alquran jox ko téere pour mu yar leen pour mu jàngal leen lan la leen di jàngal alquran ak sunna wa yuallimuhum alkitaba wal hikma alkitab quran alhikma sunna kon yonent bi ñoom bëggoon defar lan la leen defare alquran ak sunna fekk na gaa yi nekk sàmmkat ay sàmm gëléem ñooñu doon sàmm gëléem yi yonent bi defar leen ba ñu nekk ñu gën ci mbindeef yi ndax yéen waa Sénégal mun ngeen am ku mel ne Aboubacarin Siddiq loolu mooy laaj bi déedéet mënuñu ko am lu tax parce que yonent bi moo ko defar ndax ginnaaw yonent Aboubacar mun ngeen am ku mel ne Omar déedéet ndax mun nañ am ku mel ne Ousmane ku mel ne Ali ku mel ne Bilal ku mel ne Hamza ku mel ne Musab ñooñu ñëpp fan la leen yonent bi defaree ci alquranul karim kon téere baa ngi fi waaye téere bi la nit ñi bañ mu liggéey liggéeyam téere bi ba mu nekkee ci loxoy yonent bi ak ñun ba mu nekkee sunuy loxo du benn ñun bala ñu koy jàng nit dee wala qiyaamul layli jot guddi ñuy weeru koor jot ñuy naafila ñun dañuy jàng téere bi jàng kese yem ci ñee dañ ko doon jàng di ko dund Umar nee na alxuraan dañ doon jàng juróom-ñaari aaya du ñu ko jëfe lu dul ñu mokkal ko jëfe ko duñ ko paase lu dul ñu mokkal ko jëfe ko ñun da ngay gis koo xam ne xaafisu Quraan la taxaw ci kesque PMI nee nañ benn waay dafa nekk ci kesque PMI bi ran benn waay bu màndi ñëw ne ko maa war a taxaw ci kanam te moom mu mujjee ñëw ci kesque PMI bi coow li bari ñoom ñaar ñuy xëccoo waa ji ne ko man maa war a nekk ci kanam ñu ne ko yow nooy def ba nga nekk ci kanam yaa mujjee ñëw mu ne yàlla ba muy wax mbon balaa mu ne carte dafa ne sàngara ba pare innamal xamru wal maysiru kon maa war a nekk ci kanam ndeke waa ji xaafis quran la xoola nee na moo war a nekk ci kanam pourquoi yàlla bu muy lim mbon yi innamal xamru la wax comme nee na moom daa màndi moo war a nekk ci kanam gis nga ñun ni ñu déggee alquran bala ñuy jàng am ku dee te yàlla waxoon li tunzira man kaana hayyan nañ ko jàng balaa waa ji dee bala ñuy jàng am ku sukuraat benn waay dama ànd ak benn mbokk mu ngi fii ci jumaa ji toog loo tax du nekkul ay fen nekkul ay wax kese ndax kooku seede la ci waa ji ne ma gis nga sama yaay ba mu sukuraatee mu feebar feebar bi metti rek damaa dem ci benn góor ne ko jàngal dara ndax meer bi dee gaawal waay jàngal gaawal jàng ndax meer bi dee loolu la yàlla wàcc alxuraan pour ñu jàng ko pour nit dee ndeysaan ci suratu taaha yàlla doon wax muhammad ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa wàcce wuñ ci alxuraan pour nga texee di xoolal ñun ñuy jàng alxuraan tey pour nit dee mu ne sama yaay daa sonn rek ma daw dem ci góor gi ne ko góor gi foo nekk mu ne maa ngi ni mu ne ko jàngal ndax meer bi dee waaye gaawal nee na daa jàng rek meer bi dee mu def ko succès nag dafa jàng rek meer bi dee ma ne waa ji ma àndaloon nañ dem kii xamul fu mu nekk lu taxoon waxu waru ko wax jàngal feebar bi wér lu tax mënu ko woon jàngal ndax mu wér lu tax mënu ko woon wax jàngal ndax mu dund balaa nga naan dee kay balaa dee dund voilà waaye ndeysaan allahu akbar parce que déggin yee yaam musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hannde wonno tarbiyatul awlad kama yaraha alqur'anul karim neede sukaɓe ɓe holno alqur'an yiidi ɗum holko tagi eɗen gandi hannde oɗo nde ɗo windere nde ɗo renndo ngo hannde yimɓe wurata ngo ɗo wuro wiyetengo islam enen dañi heen caɗeele mawɗe mawɗe mawɗe mawɗe e oɗo waktu mo gonɗen holko saabi ɗum woni yimɓe ɓe no ɓe mbelsoniri neede neede ɓiɓɓe maɓɓe e diine jannginde ɓiɓɓe maɓɓe l'islam hannde waktu oɗo mo gonɗen oɗo zaman goto fof wiyata ko ɓeɗo sukaɓe hay goto wawanaɓe haydara ayiyat cukalel dañgen duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati yiya jinnaɓe makko ɓe wiya o hay goto wawanamo haydara joni cukalel so dañi duuɓi tati a wawanamo haydara so dañi duuɓi noga soto faɗa oɗo boobo ko duuɓi tati o dañi a wawanamo haydara joni so mawni o fotinoma mbiɗa yaltat galle o woppama woppirama o wona o wona baaba e galle he allahu akbar nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko o yarano noon ɗum tagi o wi ɓiye jangin mo ndawa dañi duuɓi jeeɗiɗi nehamo ndawa dañi duuɓi jeeɗiɗi wonda e makko ndawa dañi duuɓi jeeɗiɗi sa rendini jeeɗiɗi tati ɗi wona nogase goo cukalel ngel wona kilifa e l'islam so mawni hay goto wiyatamo yo ummo o juuloya kanko andata juulde ko farilla hay goto wiyatamo yo hoor hay goto wiyatamo o ɗiɗo comci ɓornetake hay goto wiyatamo debbo suray ɓandu makko ala hay goto wiyatamo noon kanko andinta hoore makko o holko tagui par ce que a andani a andinimo allah gila o jibina nelaɗo wi neɗɗo so dañi boobo holko adato haalde e noppi makko yo wi la ilaha illallah omo jangguinama ɗum cukalel ngel nenana ɗum ɗum tagui cukalel ngel ndewa ari omo ñamde e nelaɗo o nanni junggo makko ña nano nelaɗo koko jangge nanango wimo ya gulam sammillah e hema an guel ɗo cukalel innu allah sammillah yew nelaɗo no jangguinamo hakkude makko e allah hawa anda allah neɗɗo so anda allah o moƴƴata kala ɗo wawi tolnade doole ɗe o wawi dañde so yiɗi o so anda allah o wawa fewde mo anda allah wawa fewde il faut famen ɗum ɗum tagui ɓiɓɓe men ɓe eto ɗen nde ɓe woni sukaɓe ɓe anda allah haalnden ɓe allah haɓe haɓe anda allah so ɓe haari ɗum oɗo boobo so mawni en dañat kilifa juulɗo moƴƴo par ce que o hulay allah kono so tawi en en en cikki ko looci walla ko cabbi walla ko unuɗe walla ko doole en punti hoore men sabu needi ko adi heen fof ko dawa an nehowo a noddat sa yiɗi neede neɗɗo a noddani mo are sara ma est ce que aɗa wawi neede mo hakkude mon taw oɗon goɗɗodiri sa yiɗi fewnude mo il faut ɓadoma ndeka ko dawa hawo suusma o wasma hulde o ɓadoma so dañi hunde o ara o haalanma aɗa fewtinamo ko dawa ko rewi hen caggal daawa woni talim so ari noon a noddima hoore jangginamo koni haaldirte koni ñamrirte koni ɓornirte koni salligirte koni juulirte aɗa holla mo aɗa waɗa gotel gotel e yeeso makko omo yiya ɗum tagi nelaɗo sallllahu alih sallam nde jibril jangguini mo o ari o juuli yeeso sahaba ɓe nde o silmi holko o wi sallu kama raaytumuni usalli mbaɗire no mbaɗirmi ni njuule hono no njuulirmi ni ayi kono wala njuulire no mbawirɗon ko hande ko haalte ko mbaɗire no mbawirɗo goto foof tan yo waɗir no wawiri ni ala wona noon ko yo waɗire no allah wi ni yo waɗire no nelaɗo waɗiri ni ko noon wiya saabu wiya ko kala ko nelaɗo addani on ƴetta ko haɗi on goppe wama atakum rasul fa husu wama nahakum anhu fantahu yo allah hollu en goonga o arsina gen anden ɗum ɗo woni goonga o arsina gen o arsina en ƴetten yo allah hollu en goonga o arsina en ha anden ko ɗum ɗo woni goonga o walla en ha ƴetten goonga o ko ɓuri heewde men en yiyey goonga anden goonga wiya kono mawɓe meɗen mawɓe ɓe gasaare mawɓe ɓe ga wuro ko goonga nafata wa maha bada alhaq illa dalal allah wi holko woni caggal goonga so wona majjere sa yi goonga a ƴettani elle a yi ñamde a ñamani so neɗɗo nokki longere maaro walla longere maafe o fawi e hoƴƴudu makko o tinata safi o anda e wuli kono o andatana safi mbokk yi ginnaw hutba bi ñoo ngi fi ak mbokk julit yoo xam ne dañoo am ay jafe-jafe kenn ki sax moo gën a sonnale parce que borom këram balaa muy tuur ndox ñëwbu ko hôpital lan moo gën a metti loolu soxna si bi muy wax léegi fii ak man ci buntu jumaa ji rongoñ yaa ngi wad te yaakaaru lu dul jullit yi yaakaaru lu dul fii su ko defee ginnaaw sunu borom tabaraka wa taala buñ jullee ba pare ku leen mën a dimbali loo ci mën a sànni incha allah bañ dajale ko jox leen yàlla dimbali ko parce que balaa waa ji di dem wanag foog ñu yóbbu ko hôpital am yuñ ko defal pour mu tuur ndox xam ngeen ne minute bu nekk ñu dugal la taxi yóbbu hôpital mbokk yi loolu yal nañ ci yàlla musal yal na ko yàlla saafara yal nañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaq haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله